Ngone laa dëkk. Ngone. Ngone Wade. waaw noo jot xibaar bi. xibaar bi suba bi bu ma moom daal waaj la ko rey rek ñu ne mu tudd. Pam Ndiaye la tudd. kër Sëriñ Ndoye la ah, papaam mi ngi fi papaam nekk mhm. moom moo attaqué xale bi jàpp moo attaqué waa ji jàpp ko mhm. te problème boobu police bi la àndal police daw dugg ci oto bi mhm. sëñ bi dem na ba énervé wu sëñ nañ ut buum yeew ko après léegi ñoom ci lañ soog xam ni jaarootul ñoom ñu soog a wàcc soog a waa ji mais moom da doon lamuñu ko sax noo jox ñu mënatu ko waaw moom da doon da moom waaj ba doon naa reyaale sax sëñ bi te ñun jàpp nañ ni tam aussi ci histoire ni mu demee nii sëñ bee ko taxoon a jóg mhm. waaw ñun jàpp nañ ni sëñ bee ko jàpp nañ ni sëñ bee ko taxoon a jóg parce que bi mu ñëwee wër na booy nañu wër na fii gisu ko mu soo ko dal ci kaw xale mhm. lool loolu lañ ci am mhm. mu jam ñaari yeneen ñaari booy mu jam leen mais booy buñ ko xamul woon leneen ñooñu ma jam tey alal mi actuellement alal mi